Abdoulaye Bopp ñu koy euh, sant euh, di koy gërëm alors euh, yéen tamit chers téléspectateurs dal leen ak jàmm si ñeenteelu pàcc bi di pàcc bu mujj si seen magazine d'information la mi-journée comme niñ ko waxee woon sànq rek kii di Fatou Bintou Diouf am na ab gëstu bu yaa boo xamante ne amal na ko jëmee si coronavirus bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko si dëkk bi rawatina bi nga xamante ne ki nga xamante ne moom la njëkk a dal di doomu doomu tubaab boobee eh, wala di doomu tugal boobe nga xamante ne am na fanweeri at ak ñett ñu teewlu bi lépp eh, dossier. coow li bëri lool noppeeguñ ci sax li jëm ci fukk ak ñeenti ndongo ya nekk ca Wuhan Sénégal ci ñaari fan ci weeru mars bile daal di xamle ni am na benn cas confirmé coronavirus. ajjuma ñaar fukki ci weeru février 2020 cellule d'alerte ministère de la santé et de l'action sociale jot na benn information bu jógee ci benn structure médicale privée ne am na benn patient bu fa ñëw de nationalité française loolu joxe njort ne mën na nekk feebar bi xamante ne mooy coronavirus. Institut Pasteur bi ñu xoolee résultat yi xamante ne analyse bi joxe na ko. wax nañ ñu ne résultat yi dafa positif. ci bëri lool benn fan daal di ca toftalu ñu déggati beneen i cas amatina bi yoon nag ca banlieue ca hôpital Roi Baudouin mu nekkati nag beneen i cas boo xam ne ab nasaraan bu jógee ca France yi tamit. Euh, altine ci euh, boris 6 heures ci la fi euh, cas boobu ñëw. ñu ko isolé nag mu jël en contact ak l' administration donc informé personnel bi mu nekkaloon. donc ñu jël seen disposition isoler totalement le malade donc euh, en attendant que le niveau central réagisse et effectivement bi ñu réagir ainsi Pasteur ñëw bi mu confirmé woo que c'est positif après Pasteur confirmé résultat bi waa Fann ñëw jël ko donc yóbbu ko ba actuellement nii ñu ngi maladie infectieuse mbir ya daal di gën di takkarnaas yi askan wi uh, ku ca nekk uh, ma ngay yëkkati ay kàddu uh, jëm ci bile jàngoro waaye nag ku ci nekk jël ay matuwaayam ko ca laajte rek ma ngay xam le ni Sénégal daanaka bëgg nañ di joxe ab loxo waaye depuis bi mbir bi xewee ku nekk daa bankab loxoom. ñun waroon nañ ci boom gën a mën a taxaw bu yàgg parce que bi mu dalee bon Chine fële ba léegi li mu def 4 mois 3 mois de cela waaw pourquoi ñun bon pays africain ñun bon ñun. programme ñun ñun dañu bon dina mos a dugg suñu dëkk yi donc ñun Sénégal bon disposition boobu la waroon jël xam ni bon coronavirus bi mu ngi daagu di ñëw. ñu jël matuwaay ba nga xam ne matuwaay yooyu dina tax nit ki mën a dem ci xel bu dal mën a liggéey ci xel bu dal te itam. ñu mën ko aar li ñu mën ci matuwaay yi ñu jot a am. ndax lay mënutaa xetit tamit mënuta ñàkk waaye askan wi ku ca nekk ma ngay dalal xelu moromam waaye nag kilifa diine yi ne faaw ñu soobu ci li ni mel ndax foog ñu amal ay ñaan ngir rekk allah subhanahu wa taala wàccee si jàmm ba feebar bile dëddu réewum senegal ak àdduna wërngal këpp. ah yàlla suñu borom dogal tey lii xew sëriñ bi li ko war mi ngi koy def mooy wàcce leen alxuraan jàng ay xasida tuub ci yàlla suñu borom sàkk sarax daal di ñaan suñu borom a wa taala musal ñu ci tawat ci loolu tawféex la yaakaar na suñ sukkandikoo ci li sëriñ bi indi suñu borom mën nañoo suturaal ndax yaakaar naa li ñuy wax ne dugg na ci réew mi dégg goo ci koo xam ne ci réew mi la dëkk te incha allah rabbi bu neexee yàlla doo leen ko ci dégg. mu mel ni sax yooyee ñaan mujj naa nangu ndax ci juróom-benni fan ci weeru mars bile ministère de la santé daal di génn ci xamle ka nga xam ne nag moo njëkk am bile jàngoro daal ne nañ koo faj ba mu wër pëng. résultat yi nag institut Pasteur test na ñaari cas suspect yoo xam ne dañ leen prélevé ñaari cas suspect yooyu seen résultat dafa négatif ñu testé waat ki nga xam ne moom la ñu njëkk am comme patient bu positif ñu am ko keroog altine le 2 mars ñu hospitalisé ko maladie infectieuse kooku testé nañ ko ñaari yoon ñaari yoon yi ñu ko testé yépp dafa négatif donc kooku wër na sax bi la jàngoro doon na loo xam ne ma ngay lëmbee àdduna wérgal képp waaye fii ci Sénégal ñeenti cas lañ caa nemmeeku woon ci semaine ba ñu génn waaye nag ca mujjanteelu semaine bi ñetti cas kot moom moo des waaye ci jamono ji bu ñu sukkandikoo ci ministère de la santé ñooñee nag xel mën naa dal ci ñoom ndax ña ngay saytu bu baax seen gu yaram waaye nag lañuy ñuy soññante askan wi mooy ñu bañ a bàyyi diggé yi nga xam ne tëral nañ ko ngir mooy tandeku feebar bile mu law ci mim réew Fatou euh, Bintou Diouf euh, doon waxtaanee euh, lu jëm si wàllum coronavirus si fàttali rek ñu ngi fi ak monsieur Arona Diop nekk fële sa cette santé alors monsieur Diop ñu ngi lay nuyu. oui maa di nuyu téléspectateur euh, Walf euh, Quotidien te yaakaar ni waxtaan bi dina leen amal njëriñ. Walf Quotidien Walf TV Walf di lay euh, sant di lay gërëm ak rawatina tamit Walf Net alors monsieur Diop waxtaanee jëmee si wàllum coronavirus alors ñu gis ne ki nga xamante ne moom la feebar feebar bi njëkk jàpp si mim réew di ab doomum tugal alors ñu gis ne si jamono ji mën mën nañ ne wër na ba dellu këram est-ce que euh, mën nañ ne peur wala psychose bi nga xamante ne euh, jaxle bi mu juróon jaroon na ko fi. waaw euh, jërëjëf loolu xam naa lu ñuy rafetlu la te di féliciter équipe sanitaire bi nga xamante ni taxawaw nañ ko ba mu ba mu wér ba ñibbi këram loolu dafay wane rek ni système de santé bi ñu yor am na solo te aussi xëy na jaaxle beeg panique bi nga xamante ni am na ci population bi ni ñu koy jàppee rek mooy dañu jàpp ne xëy na. Mhm. amuñu information bi ñu war a am wala fa ñu war a jaare pour am la bon information xëy na jaare wuñ fa peut-être moo indi panique beeg yooyu mais vraiment ñu ngi ciy sant yàlla bu baax bi nga xamante ni résultat yi commencé na ñu gis ne bi lépp malade sa hôpital fànn lañ ko fajee ba mu wër est-ce que mën nañ ne euh, boobee hôpital kese mën na dëkku lu mel ni épidémie. non loolu jarul nuñ ko wax parce que bu dee épidémie du benn hôpital rek moo ko mën a gérer. mais dafa tolloog système bu taxawee dafa am hôpital boo xamante ni mooy euh, référence bu mujj ba man dama xamul ni ko mën a expliquer ci wolof pour ñu mën ko comprendre mooy bu bu bu lépp dajee wala mooy cobbaxtalu prise en charge bi nga xamante ni moo am loolu mooy mooy cadre hôpital Fann mhm. mais épidémie bu amee moom dinañ fexe ba lépp lu structure lii yoon mooy fexe ba lépp luy structure nga xamante ni boo fu ñëwee ñu mën la teg ci yoon bi pour yoon bi nga bi ñu la mën a jël en ba nga xamante ni bu laajee nga yegg fànn aussi ñu yegg fànn. est-ce que tamit euh, waruñoo mën a def ba am lu tollu ci ñaar wala ñett yeneen hôpital fan waaw loolu je pense que loolu euh, euh, vision politique la par rapport ak état. Mhm. parce que dafa am lu ñuy tuddee structure de référence. Mhm. donc structure de référence boobu nag état moo tëral politique ba nga xamante ni mu ne ci wàllu feebar bi mhm. fii mooy référence bi bu dee ci wàllu opéré fii mooy référence bi bu dee ci wàllu feebaru góor fi mooy référence bi loolu politique la. mais li nga xamante moo ci am solo mooy fexe boobu bu feebar bi taxawee ñu mën a jaar am ay moyens am yu ñu ko mën a jëlee en charge ba nga xamante ni feebar dina war. kon mën nañ dire que loolu mooy wane rek ni système Sénégal seen système sanitaire baax na. Mhm. te ni ñuy jëlee en charge aussi ñi nga xamante ni ñoom lañu déclaré ni ñoo feebar aussi vraiment dal na xel. te mën nañ ne ce n'est pas une euh, grande première parce que euh, ñëwoon na tamit euh, wala lu ñu mel ne meeku woon nañ ko ci Ebola ba boobee malaat sax Sénégal mujjee na ko faj ba delloo ko woon dëkkam ñu gis ne. si aéroport yi mën nañ ne euh, dispositif bi demee woon nu ni mel ba tubaab boobee ñëw est-ce que euh, mën nañ ne euh, hôpitaux wu Sénégal yi jël nañ disposition yoo xamante ne dina mën a tax ba feebar bi wala médecin yi fa nekk ñi nga xamante ne ñu ngi faj dinañ leen mën a saytu. waaw maa xëy na peut-être ci aéroport bi duñ ci mën a sori lool ndax maîtrise wuñ ko trop trop trop mais dama xamul lan lañ jàppee ni dispositif bi baaxul ba nga xamante ni dañu ni dispositif ndaxte jàpp nañ ne tubaab bi dugg si na fi waaw gis nga Sofietu loolu dafa am solo pour ñu mën cee communiquer mhm. ndax du parce que rek tubaab bi jaar na aéroport dugg senegal mhm. que euh, système bi dafa dafa dafa am faay déedéet ça veut dire que ni balaa nga mën a xam ni kii amee na feebar il faut que lii wane nii amee na feebar feeñ ci moom. donc nit mënul ñëw jàkkaarloog yooyu rek ngeen ko kii amee na feebar sàngam. Mhm. dañuy ni feebar bi bu taxawee lii mooy màndarga ni mën nañoo njort. njort la d' mhm. ba pare ñu dem defi analyse pour dëggal mhm. ndax mën nga njort ndax dégg nga ci liñ ci wax ni liñ ci njort kenn xamul nu mu toll mhm. mais biñ ko seetee benn amu ko ci léegi donc nag bu nekkee nit ki wanewul njort yooyu yu tax mais lan nga mën a am yow pour mën a wax kii amee na ko la preuve ñi mu bokkaloon aéroport bari condition bi ñu wàccee condition yi ñu jàllee ñoom ñëpp ñoo ko yem parce que moom dafa développé symptômes yi. Mhm. ñeneen ñi développé wuñ ko léegi est-ce taxaw képp ko fa wàccee rek nga téye ko. Mhm. loolu je pense kenn du doxalee. léegi euh, disposition yi wala dispositif yi si euh, hôpitaux yi. léegi nag su ko defee boo ñëwee ci cadre hôpitaux yi nag ñun mhm. liggéeykat toujours dañ ko wax ni euh, njaw des na xambin. parce que je pense que ni feebar bi nekkee nii. hôpitaux yi waroon nañ am formation bu doy waroon nañ am matériel bu doy ba nga xamante ni cas suspect bu ñëwee ñu mën ko ñu mën a aar seen bopp d'abord aar ko pour mën a woote le niveau central mais loolu ay la yoon lu manqué la ci structure d'accord moo doon sama beneen question bi ci toftalu sax ndaxte euh, lii di waa SAES di ab kuréel boo xamante ne dafa ëmb euh, wàllum kër docteur ñoom tamit ñu ngi ñaawlu euh, manque de dispositif wala manque de moyens yoo xamante ne nemmeeku nañ ko ci structure sanitaire waaye rawatina manque de concertation bi ñuy jooy. waaw da man dañ ñun dañ wax ni souvent que ni euh, xëy na manque de moyens ñu ngi koy ñaawlu. ñu mhm. ko ñëpp liggéeykat yi ñaawlu parce que toujours wax nañ ni loolu mooy tax nit ki di aaru. Mhm. maintenant exposition bi nga xamante ni waxoon nañ ko ci nii dañoo exposer personnel santé loolu moo nekk suñu dundit mhm. personnel de santé dafa exposer en permanence ci risques yi. d'ailleurs eh, xam naa bu ñu ci tolloo dinañ ci ndax moo tax ñu ne ñun suñu prime de risque yi ñuy nañ ko yóbbaale bu ñuy dem retraite bokk na ci nga xamante ni dinañ ko yàqtu mais donc moyens yooyu des na maintenant par rapport ak implication bi ça veut dire ñun dañ jàpp ni système bi moom moo yor cugal góyam xam ni muy doxale mhm. boo dekkee dafa ni système bi ñii ñoo yor communication nañ koy gérer efficacement bu ñu nee ñii ñoo yor traitement yi nañ leen jox moyen ñu gérer ko efficacement mhm. bu dee ñii ñoo yor logistique bi nañ leen mettre ay dans condition pour ñu réussir ko mhm. donc ñun amuñ ci sax benn fixation bi pour dire que nañ ñu impliquer carrément ci système bi parce que nous nous sommes dans le système déjà l'essentiel mooy bu yegsee ñu war ko def nañu jox ay jumtukaay yi nga xamante dañ ko mën a def pour réussir mission bi ñuy def. d' accord euh, ñu wax si euh, protection wu malade yi euh, ndaxte umpale woo ni fële sa hôpital Fann du malaat boobu rek moo fa nekkoon di tubaab boobu yi nga xamante ni jamono ji bi na këram ña sa des nag nañ leen doon doon saytoo. waaw loolu moom li am na solo mooy ni ni ñu aaree ki nga xamante ni doomu jàngoro bi ci moom mhm. parce que souvent boo xoolee liggéey bi état di def nii mooy ñu ngi xool ñan ñoo nekkoon en contact mhm. léegi nag bu nekkee feebar bi déclaré na bañ jël la moom moo tax ñuy wax isolement mhm. donc dañ la war a aar protéger la mhm. par rapport ak ñi nga xamante dañ ñëw mhm. di dugg ci service boobu ndax aussi li ñu mhm. war a comprendre aussi mooy service boobu yorul rek ñoo ñu amee doomu jàngoro bi ñeneen na nga fa dugg beeg génn bi yëpp am na mais dañuy teg dispositif boo xamante ni dinañ leen mën a euh, ber aar leen ba nga xamante ni doomu jàngoro bi duñ ko wàll ñeneen muy personne contact mais ñun personnel bi loolu lay loolu ñuy wax toujours te duñu noppee di ko wax mooy li ñu soxla ci jumtukaay pour mën a taxaw taxawaay buy war dafa des moo tax bi ñu gisee ni feebar bi am na président bi mu wootee euh, woote gi mu wootee ni jàpp na dina génne un milliard quatre cent pour teg ko ci table yi ndax situation oblige mhm. ñu ne dañ ñàpp ni un milliard quatre cent yooyu war nañu fexe ba xëy na doyul mais ba structure boo xam parce que feebar mënu la wax ni damay dem faat mhm. mais li nit ki am habitude muy bu feebaree rek structure bi ko gën a jege fa lay dem mhm. maintenant feebar ba mu yor ban feebar la mënugu koo xam donc nekk bu nekkee structure yi équipé wuñu leen pour ñu mën a jël en charge ñooñu mm-hmm. day nekk risque boo xamante ni day gën a yokk ci liggéeykat yi nga xamante ne dañuy liggéey ci wàllu santé d'accord alors euh, mbokk yeeg yi nga xamante ne yéen a ngi teewlu seen magazine d'information la mi-journée euh, si fàttali rek ñu ngi fi ak euh, docteur Arona Diop nekk secrétaire général bu Sat Santé nekk syndicat autonome des travailleurs de la santé affilié à la CNTS ou bien à la CSA alors ñuy waxtaanee rek jëmee si wàllum coronavirus bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko si dëkk bi alors monsieur Diop Euh, ban euh, wala lan nañ mën a jàpp ne moom moo changé wala moom moo soppeeku bi nga xamante ne nemeeku nañ feebar bi ci dëkk bi. waaw li nga xamante ni soppeeku nañu mën koo wax ni teg ci suñu baaraam. Mhm. mooy relation étroite bi am ci niveau central ak niveau périphérique. bu ñu nee niveau central mooy ci kilifa yi. Mhm. donc xam nga bu njëkk euh, dañ doon def ba par benn weer par ñaari weer wala par ñetti weer. Mhm. la hôpital bi doon informer structure niveau central ni situation bi doxee. épidémie bi dugg si uh-huh. moo tax hôpital bu nekk wala structure bu nekk ñaan nañ ko ni jour bis bu nekk dina remonter l'information par rapport ak niveau central uh-huh. te boo seetloo même au niveau central jël nañ ñoom décision chaque jour bu tàkkusaan jotee ñu communiquer uh-huh. normal mais parce que situation exceptionnelle bi moo indi comportement boobu donc loolu jàpp nañ ni changement bu bees la mais dañ ne nag changement boobu waroon nañ ci laaxaale aussi yokk équipement bi nga xamante ni dafa nekk ci hôpitaux yi vraiment pour ñu sentir que ni lii nii wala jumtukaay yi ñu andi nii situation bi pose moo nekk mais bu nekkee situation bi dafa posé te jumtukaay yi nit ñi doon liggéey Euh, matériel bi ñu doon yokkuwul. Mhm. vraiment loolu dina indi benn euh, xel bu dal di ci travailleur ci ñu ñaan ministère bi vraiment mu yokk ci loolu mais bu dee changement bi moom. mooy mhm. communication étroite bi ak tous les quotidiennement bi am ci diggante niveau central ak niveau périphérique. alors ñu wax nag euh, si beneen fànn waaye ñu des ba léegi si mbirum santé bi mooy que ni mën nañ ne at yi ñu wees yëpp ñu ngi nemmeeku ne secteur santé bi dafa bëri ay mbiccook Mathieu alors euh, lan lañ mën a jàpp ne moo waral lu ni mel. voilà ci kaw loolu sax boo xoolee ñun cadre unitaire bi ñu bokk nii ñu ngi nekk ci benn mouvement d'humeur mhm. mooy ay grève mhm. d'ailleurs ñu doon waajal benn troisième plan d'action mais lii dugg si nii moo tax bi bureau bi dajee ñu ne loolu nañ ko ajandi mhm. nañ ko ajandi parce que je pense loolu yëpp dafa am solo ñu décaler ko en attendant jàkkaarloog situation bi dépassé ko pour mën a waxtaan ak gouvernement bi. Mhm. parce que li ñu teg ci table bi benn plateforme la. Mhm. plateforme bi dafa am bu ñu ko doon xaaj ñaari pàcc. Mhm. benn bi dafay dugg ci plan d' euh, de carrière liggéeykat bi. ak njàngam ak niveau ak estetam beneen bi toll ci wàllu ndàmpaay yi. parce que dañu aussi wérgu santé. la preuve. koo gis muy liggéey ci santé nu ñu lay tuddee kër docteur. dañu kii day liggéey mooy def système bi. donc système bi ku nekk da ci am pàcc ak wàll booy liggéey. dañu nekk loolu ni état fexe ba ku nekk gis boppam ci taxawaay bi ak toppatoo bi. Mhm. fii dama koy dëpp indi mbirum indemnité ba pare d'abord. Mhm. ndax boo xoolee ci mbirum euh, ndàmpaay yi dañ gis ni kër docteur wax dëgg yàlla dañ ni wér-gi-yaram amul njëkk. Mhm. donc kii futteeku ñu loolu laay def. am na benn taxawaay mais dañuy taxawaay boobu nag doo ko yemale ci kenn kese ndax ñu bëri dañuy jàpp ni docteur bi kese mooy def système bi alors que système bi ensemble la léegi nag boo jëlee da nga jël docteur bi nga seppi ko ci donte la nga des na doy lu wuñ ko ne nañ ko yokkaat mais ñi nekk ci côté mi yëpp nga ne léeg-léeg ñoom nañ toog da indi frustration te da ngay tas sa kër te loolu lañ constaté dañu nag loolu ñaan nañu nguur gi ni ku nekk fa nga nekk par dafa am benn indemnité bu ñu joxe muy indemnité de représentation loolu aussi dafay jaadu ñu leeral ko mooy nekk gi nga nekk rek docteur am na ndàmpaay mais nekk gi nit ki nekk secrétaire nekk bi liggéeykat bi nekk technicien supérieur nekk bi liggéeykat bi nekk sage-femme wala infirmier loolu nag amul amul responsabilité mhm. dañu loolu état na ko yaatal mhm. laajuñu la kële di laaj bu kooku benn la ci mhm. boo ñëwee ci wàllu plan de carrière fàttali boo doon dugg ci wàllu profession bu ñuy tuddee infirmier sage femme. dafa am noo fa doon duggee. sa veut dire da ngay am BFEM après nga def formation ñetti at boo génnee nga am niveau bac. ñu am statut bu ñu la dëkkal mais ñu gis ni sous région bi ñëpp changé nañu loolu ba yóbbu ko niveau bac effectivement sax boo xoolee ci mujj gi. ñi doon dugg yëpp niveau bac la ñuy duggee mais comme niveau def BFEM la ñuy laaj noon lañ leen di considéré. mais bi ñu ko yóbboo niveau bac léegi boo génnee da ngay nekk niveau licence muy bac plus léegi ñu war jëlee ci catégorie b bi. yóbbu la ci B. un mais ci diggante bi nag mu am technicien supérieur bi formé infirmier sage bi encadré ko moom ñu bàyyi ko ci B2 loolu nag état def ni d'accord na ni loolu njuumte la ba dinañ ko corriger mais corriger pour corriger bi nag ñu ni dañuy def loo ñeneen ni ay formation wala ay yeneen rattrapage dañ ni loolu xaju fi te jàpp nañ ni amul amul sens bu ñu ko war a defee ndax bu dee passerelle passerelle bëri na am na fi corps bañ koy tas wala bañ koy dindi am na examen blanc bu ñu defoon. ñu mhm. dugg ci beneen corps. techniciens médicaux yi ñu defal leen la même chose ñu dem technicien supérieur donc loolu aussi cas de jurisprudence la foofu la ñuy woo état bi léegi nag coronavirus bi taxaw na ajjani nañu mais ñu ngi ñaan autorité yi surtout ministre de la santé pour mu ñu profité ci accalmie bi pour mun a waxtaan seet ay piste ñuy def parce que ñun bu ñu posé problème rek indi nañ la ay solution ñu teg ko ci table ndax bu ñu ko deful ëllëg ak sibir kat wax dëgg yàlla li ñu yoon may syndicat mais yu noonu la taxawee li ngeen di ñaawlu tamit bokk na si wàllum politique bi nga xamante ne nemmeeku euh, ngeen ko si recrutement yi waaw loolu moom dañ ko yàgg di xeex mhm. parce que dañ wax ni recrutement normalement dañ ko war def de manière démocratique mhm. te loolu mooy doon que tax am na commission bu ñu ko teg nga xamante ni dañuy boole euh, niveau bi recruter mooy ñi ñi boole partenaires yi indi ñuy liggéey parce que aussi la nga dul mën a comprendre souvent mooy da ngay gis dans les structures ci wàllu kër docteur nga jël benn élément def ko contractuel pendant fukki at mais xoolal enseignants yi bi ñu defee contractualisation benn année dañ leen yóbbul ci garantie euh, embauché leen ñun dañ ñu état loolu euh, au niveau de la du ministère de la santé au niveau ci wàllu wér-gu-yaram loolu la ñu soxla parce que boo ko defulee nit ki bu amul garantie emploi toujours dafay nekk ci jiixi jaaxa te loolu nag dañ ni d'accord nañu ni poste bu limité woo bu ñuy teg di tànn. nañ ko teg ci table ji ñu tànn ko démocratiquement ki nga xamante ni moo ko gën a yelloo ñu jox ko. mais li nga gis souvent ku ma am ndey ak ku ma amul day def ciy bari. ça veut kër que bu dee man maay jël. man dinaa xool sama mbokk xool sama ainsi de suite mais dañu bu ko tegee ci table bi démocrate bi teg ay critères. wax dëgg yàlla foofu la ñuy invité état bi pour ñu mën a def euh, euh, euh, dem nag sa beneen fànn ba waxtaanee mbirum coronavirus ba léegi ak xooxandoo nga xamante ne am na waxtaan bu yaa boo xamante ne sikk na ko si ak Ali Nabede di ñaawlu rek jumtuwaay yi nga xamante ne néew na lool si kër docteur yi nga xamante ne. nemmeeku nañ ko si région yi nekk si biir euh, Sénégal ñu teewlu euh, waxtaan bi nga xamante ni euh, sikk nañ ko ñoom ñaar. Ali Nabédé ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. monsieur Nabédé ñu gis ne ab l'enquête bu journal bii di l'observateur amal di wane ni ci yéen yi nekk ci région yi euh, daal ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee amuñu ay jumtuwaay yoo xam ne ni mën na leen a permettre rek euh, ñu mën a euh, xeex li nga xam ne moo di feebaru coronavirus naka ngeen gisee situation bi la. waaw situation boobu de moom la déplorer chaque fois ndax lépp lu xew rek daanaka a privilégié. waaw ba ci leader bi si doon wax waaye def naa ne li nga xam ne moom la mën a remarqué Sénégal mooy fi mu a euh, a comme ñun amaguñu vaccin bi nga xam ne mën nañ si aaru ah ñu jéem def ay information yi nga xam ne moo war wër si biir marché yi fi nga xam ne fa la nit ñi di dajaloo di a wax ak nit ñi di leen wax geste yi nga xam ne moom la ñu war a def xale yi bu ñu wàccee école lan la ñu a def lan la ñu war a defal xale yi di leen raxas seen loxo di leen saytu ne loolu moo mettragul en place te dafa mel ni coronavirus bi daal région yi ñun daal euh, dañ koy dégg noonu rek alors que loolu buñ ko xalaatee erreur la ndax nit ñaa ngi tukki chaque jour di dem Dakaaru di jóge Dakaaru di ñëw luga te def naa ne bu Dakaaru amee wala luga am ni foog ne Dakaar rek la ñuy aar aaruñu ndax bu ñu aarul Louga te mbir mi dina ñëw Dakaar ndax waa Louga ñu ngi ñëw Dakaar chaque jour taxaw ne ne bu ñuy développé yenn politique de santé di négliger les régions parce que régions yi Sénégal du Dakar kese région yi dañ si war a bàyyi xel te loolu du si coronavirus bi rek ci feebar yëpp si mbir yu bëri la thème sanitaire bi te loolu dañ ko war a saytuwaat xoolaat ko bu baax. d'accord euh, ana nag ban njeexintal la loolee mën a am euh, ci askan wi ak ana lan moo war a doon taxawaayu état ngir euh, mën a jàmmarloo ak li nga xam ne moo di coronavirus ci région ah, bi mooy ci région yi déplacé oto yi dañ taxawul ñu ñaa ngi voyagé donc lépp ñuy yóbbu Dakar daal dañ ko war a indi si région yi ndax nit ñi mën a fagaru ndax bu ñu foogee ne dañuy faj waa Dakar rek aar waa Dakar rek te dina si yem loolu moom def naa ne du sotti loolu moom dafa mel ni nga jël benn pomme de terre bu nëpp nga dugal ko si biir benn saaku pomme de terre bu yàggee yëpp lay yàq man daal damaa foog ne ne lépp lu ñuy def dispositif bépp bu ñu bàyyi au niveau de Dakar dañ ko waaye bàyyi si région yi ndax def naa ne loolu mooy mucc Sénégal bi yëpp addu euh, euh, mel ni publicité ngir askan wi mën a xam ana lan mooy feebaru coronavirus virus. foofu la amee solo sax ndaxte mënoo gis askan bu ne nga naa dañ koy jox eau de javel ak savon pour mu raxasu wala ngay tegloo technique bi si mbedd bi dina raxasu loo waaye liy gën a yomb mooy ngay def ay spot wala jël ay rajo di wër si biir dëkk bi di wër si marché yi même dans si biir école yi ñaax xale di ñaax jaaykat yi tamit jaay nga xam ne ñooy jaay si mbedd di jox xale ñaax nit loolu buñ ko defee def na dina ndax mbir mi vaccin a ni yow yaay secrétaire national bi yor kàddu ñi nga xam ne ñoo di liggéeyee kër docteur bootu ci kuréel bi ñuy duppee sas nekk itam secrétaire général euh, SUTSAS euh, bu raison Louga. merci Andong euh, jërëjëf ñun tamit euh, ñu fàttali ne ñu ngi fi euh, ba léegi ak kii di monsieur Arona Diop Bokkeyes Sat Santé moom mi lay doon secretaire général u birep kuréel alors monsieur Diop nan nga gisee xalaatu Ali Nabidé oui li mu wax euh, dañ koy séddoog moom parce que dañuy wax ni. du lu mu du lu mu du lu mu inventé. lu mu teg loxo la. situation bu mu dund la donc dañ lii moo nekk ci terrain bi. donc euh, rafetlu nañu artu bi parce que c'est waa euh, syndicaliste loolu mooy mooy mooy solo bi. ça veut dire boo gisee situation boo xamante ni jàpp nga ni situation bi bu bu continuer du baax. nga wax ko artu ko c'est important mhm. c'est pas parce que da ngay critiquer mais da nga ko wax parce que looloo nekk ci terrain bi mhm. su ko defee ñu invité état bi pour ñu mun ko corriger vraiment ànd naa ci moom ci loolu nga xamante ni gis nañ ko ndax effectivement mhm. que da gis ni hôpitaux yi euh, yenn hôpitaux yu mag yi ñoo ëpp équipement ñoo ëpp yenn moyens que hôpitaux yu ndaw yi foofu tamit sax ñu baal ñu def ci benn taxaw seetlu aussi mooy lépp mu ngi dépendre ci plateau technique bi aussi c'est important. Mm-hmm. xëy na moom fi ñu waxee mooy corona bi rek mooy comme ni ñu ko dénoncé moyens yi war a suivre suivre. Mm-hmm. mais il est bien vrai que nag ni hôpital yëpp mënuñoo bokk même équipement yi tout lépp a ngi dépendre ci euh, plateau technique bi. Mm-hmm. ak façon feebar yi nga xamante ni ñoom lañ leen jagleel. alors ñu gis ne euh, santé am na budget waaye terewul ñuy nemmeeku ne mu ngi sooxe ba léegi ana lan moo waral lu ni mel. waaw loolu bu ñu ko waxee souvent damay faral di fàttali waxu président Ablaye Wade bi bi ñu tolloo ci jafe-jafe yi ba mu wax ni euh, li ko metti mooy ñett ñi seq santé kenn kontaanul mhm. mu ni mooy gouvernement bi mooy liggéeykat yi ak population mhm. te nee li ma ci def ci xaalis dafa bari mhm. effectivement mais malheureusement dañ jàpp ni xëy na loolu buñ ko doon waxtaanee ñu discuter ko ñi ci bokk ñëpp ñu boolee leen ci je pense que doon na doon na indi indi ay solution wala doon na indi njariñ gu bari. Mhm. mais dañuy gis souvent rek ni da ngay régler benn pàcc. Mhm. bàyyi beneen pàcc. te ñeneen ñi nga bàyyi am seen importance ñoom ñu daal di taxaw. Mhm. pour wax la ni bul xeeb benn bul xeeb ñaar bul xeeb benn corps parce que comme lépp dafa war a nekk une mutualisation mooy jàppalante la. kenn ku ci nekk am nga sa njëriñ ci biir secteur bi. donc loolooy waral ni xëy na boo jàppee ni ñii sol blouse rek ñoo am solo. nga leen jox leen ndàmpaay. mais ñiy bale ak ñi yor ambulance yeeg ñeneen ñi dañuy taxaw. bu ñu taxawee di nga génnee xaalis léegi xaalis boobu boo ko génnee ak la nga génne woon da jàpp ni génne naa xaalis bu bari ñii tamit bu ñu ñëw war a faju si nga ni xaalis jox naa ndàmpaay personnel bi ñu ni manqué na rajo bi manqué na lii produit bi manqué population bi ne ah ñun lañ bëggoon ut seeti ci hôpital ba amuñ ko looloo tax ñu ni souvent yu mel ni boo amee li ñu invité mooy nañ koy étudier toog waxtaane ko discuter ko Euh, partager problème bi nga xamante ni boo indil solution xëy na dina mën a régler mu mel ni daal euh, jar na ab taxawaa seetlu ñu dem nag sa pàcc bu mujj bi lépp magazine d'information euh, di li yéen a kaay xëyee ñu àndi si ak Abdoulaye Boub dal leen ak jàmm ba tey pënd mi wureegul ci diggante nguur gee Karim Wade bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien yéen a cabinet Karim Wade amatina ndam ci kaw nguur gi gannaaw dogal gi tukkee ca tribunal première instance bu Monaco mi sàkku ci nguurug Sénégal ngir ñu delloo ko par maanaam remboursé bépp moomeel ga ñu jëlee ci Karim Wade ñu delloo ko moomeelam yéen a cab li ñu fàttali ne fépp fu ko nguurug Sénégal kalaame Karim Wade daan na leen Le Quotidien jëll gu set wecc moom la nguurug Sénégal daanu ca Monaco Karim Wade moo leen ko yóbbee gannaaw bu tribunal bu Monaco joxe dëgg ngir nguurug Sénégal delloo ko bépp moomeelam Le Quotidien bi la yoon Karim Wade gañewaat na leen Walf Quotidien lu jëm ci troisième mandat jeex na tàkk ca Côte d'Ivoire gannaaw dogal ga tukkee ca Alassane Dramane Ouattara mi xamle ne ci élection présidentielle ñu jëm ca Côte d'Ivoire du ca doon candidat tax Emmanuel Macron njiitu réewum France daal di kañ dal di bàkk kii di Alassane Dramane Ouattara ne dugg na ci taarix gannaaw dogal ga mu jël tax Emmanuel Macron ne Alassane Dramane Ouattara mile homme de a kabil l'exclusif nguurug Macky Sall wane booba léegi ci tolluwaay réew mi dalagul xel bu ñu sukkandiko ci Guy Marius mi génn kaso yàggut yéen cabinet mbooloo mu takku ñoo ko gàttandu ca Ziguinchor rawatina ca dëkk cosaanam fa lañ ko sargale Guy Marius Sagna ay kàddoom ci biir yéen a bi xam le ne réewum Sénégal ci waxtu wi le fépp ay metti le pays mal lu ko dalee ci njàng meek njàngale mi ba ci wàllu paj meek feneen ak feneen Guy Marius ne te ba ba léegi nguur gi jógul ci saax-saaxe alalu réew mi yéen cabinet di l'évidence ne njiitu réew mi Macky Sall kenn mënu ko nat kenn xamul amul lu mu bëgg gannaaw bu mu teree yàggut njëndum woto yu cher yi yéena kaabine moom jiitu réew wëlbatiku fab woto 4 x gu bakkane te njëg ma toll ci ñeent fukki ak juróom moom la may woykat bii di Baaba Maal l'évidence gis ne jaadutoon ndax Baaba Maal mile doon na woykat gu ñu ràññe te mënal na boppam yéena kaabine ñeent fukki million ak juróom yooyu le xejoon na ci askan wi ndaw ñaa ngi ni di dund ñàkkum xëy askan wi ne ci coono gu metti ci biir yéena kaabine libération Aliou Lo njiital mouvement Sénégal conscient daal dina sàkku ci njiitu réew mi gi di leen di déglu ndax jafe-jafe ya ñuy dund saay su ne rawatina nawet gi ñu weesu mbéy mi taxu koo demee noonu te bu ñu deful ndànk kaw gi mun naa dund jafe-jafe ci noor gi Alioune Lo bu jaamal ne coow warutoon a am ci njëndum gerte gi gis ne dañ ko war a yaatal chinois yi am nañ ci seen cër ak ñeneen ak ñeneen ne doxalin gi ni mel duguleet ndax mu ngi doore ci atum 1994 ca nguurug socialiste ba woon yéen a kaabidi Le Soleil ji di coronavirus yéen kaabine gannaaw ñeenti ña ko jot a am ba ne ñaareel ca lalu a kaabine xamante ne jot nañ ko faj ba mu wér peng bu ñu sukkandiko ci professeur Moussa Seydi mi le ne amu ci mbetteel ndax njortoon na ne ak matuwaayan ca jël saafara mun na ca am ne ñett ñi des ña ngay def seen kémtulaay kàttan ngir mun leen a teqali ak jàngoro ji di coronavirus yéene kaabine l'observateur xëy amal taxaw seetlu ci ni nguur gi di xeexee jàngoro ji di korona coronavirus yéene kaabine mbette arme bu dem ci guerre te amuti ngannaay maanaam fajkat yi jumtukaay ya ca war amuñu ko kenn jotu leen cee tàggat yéene kaabine direct news xëy di ñu yëggee lu bees ci diggante Jeynaba Diallo mi tuumal Mamadou Diop bu ISEC ne def kaa sàkku ba mu jëlee ca ëmb yéene cabinet ci mbir mi le am na lu ci xew am na lu ci bees ndax Dieynaba Diallo moomule ma ñu ne mineur la ab xale la te mu newoon ne ci fukki at juróom-ñaar la toll yéene cabinet déet Dieynaba Diallo am na lu toll ci ñaar fukki at direct news di ñu fàttali ne 2011 bi jot na amal jugement wàññi ay atam tax waa police wutali état civil bu Kolda ngir xam direct news ne am na ñuy fexeel Mamadou Diop am na ñu ko bëgg a suruxal bokk na ca ñaareelam gamu fase yàggut di Aysatu Seydi a daaneel ngir teg loxo ISEC réew mi quotidien 8 mars bangoog sargal nañ ci jigéen ñi jawriñ gii di sali Saly Diop yëkkati ci kaddoom daal di sàkku ci jigéen ñi ngir ñu boole seen doole te wey di dimbalante yaay faatu Diagne jigéen ñi am nañu doole naam waaye goog ànd ak jàppalante ga ca war moo amut Ndeye Abibatu Sidibé ne na jigéen ñi gëm seen bopp xam ne mun nañoo réussir lu ñu soobu mun nañ ci am ndam turbine ne ndaw 8 mars bu tiis ndax xale bu jigéen bii di Mariam Diagne jotu ko fekkee am ku ko jàmpaaka ba mu faatu yéen a cabinet ñeenti jigéen faatu ci accident ci yoonu Fatick Vox Populi ne ki faat ndem si yàlla Mariam Diagne xam nañ ko Assane Gueye lay wuyoo paakam la jël jam ko Mariam Diagne lu tolloog fukki yoon ak juróom-ñaar yéene cabinet Mariam Diagne moomule étudiante la woon en génie civil doonoon jigéen ju wérul ay kàddoom ci biir yéene bi soxna Ndiaye te yaayu Assane Gueye wax ne doomam àndutoon ak xelam ne yàgg naa artu Mariam Diagne ngir mu moytandiku wala bàyyi Assane Gueye yéene cabinet enquête ne laata musiba gi di am njabootu Mariam Diagne ak njabootu Assane Gueye kenn ku ne ci ñoom jotoon na porte plainte waa ne 8 mars bu doy waar am ca Thiès gannaaw Mariam Diagne gañ fa faat ci anam yu yéeme ka ko faat muy kamu daan génnal laata muy dem sëy ji feneen génn cabinet waajoojee Assane Gueye lay wuyo Maroc la jóge ngir régler ay kontam maanaam fayantoog Mariam Diagne benoone mu koy faat waa Grand Place ne moom Assane Gueye koppar ya jot a def ci Mariam Diagne te jotu ko tàkk soxna doon lu ko metti Assane Gueye ne comme que Mariam Diagne ba na ko sëyi feneen na ko ko remboursé na ko delloo kopparam libération ne tey ma xew seen diggante Assane Gueye di leeral jéggi dayoo la ko bëggoon te jotoon na artu Mariam jaañ jotoon na ko dànkaafu ne fu ma toll ci yow saay boo ma waree dem sëy ji feneen dinaa la faat dinaa lem say fan te def na ko libération di ñu fàttali ne moom Assane Gueye alxamis gi ñu weesu la bawoo ca Maroc ñibbisiwaat Sénégal te tàgguwul njabootam yëgalul kenn ne mu ngi ñëw dafa yëg si fab paakaam jubali fa Mariam Diagne di sëy jam ko ba mu faatu yéen a di ne lu toll ci fukki jam-jam ak juróom-ñaar la ñu fekk ci yaramu ndem si yàlla Mariam Diagne ko sànq gannaaw mu gisee ne def ko ko dem seeli keneen Abdoulaye Bopp ñu lay euh, sant di lay euh, gërëm di euh, sant tamit suñu invité doonoon monsieur Arouna Diop ñu koy sant di koy gërëm monsieur Diop ce dernier mot voilà di la di la gërëm ci invitation bi tey wax population bi rek ñu am seen sérénité te lépp lu ñu bëgg a laaj am na téléphone yëpp ñu fa mën a jaare pour laaj ko concernant ni euh, kaddu gi leer na yéen tamit euh, mbokk téléspectateurs yi ñu leen di euh, sant di leen di gërëm si teewlu bi ñu sant Oustaz Assane Diouf si coordination bi réalisation Ndeye Fatou Ndiaye ak Seydina Oumar Ba ñu fa woon si technique bi doonoon Modou Fall ak Pape Samba ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme Walf TV. la voix des sans-voix.